wa activité yi ni mané depuis yakar na né presque 15 jours ñi ngi ci terrain bi parce que tamit comme que askan bi dañu am ay jafé jafé ndox mbënd bi sonal leen trop bañ ci bari bari bari génn seeni kër nga xamanteni bi nak moy soxna Ami mbacké nek daas bu ministre dam Diop am ndombal tank président Macky Sall nga xamanteni bi ndombal tank li leen di takal pour ñu nek ci jafé jafé askan bi. loolu nag moom la xam ba depuis bi ñu amee fi ay jafe-jafe ñu wàccee équipe bu am bu takku ci terrain bi pour ñu jàppale ñi nga xamante ne bi ñu am ay jafe-jafe ci wàllu mbënd bi. dañ koy refarlu toujours waaye tey fii mu ñëw nii fii lañ ko gën a soxlaa ndax dañoo ñëw ci kër goo xam ne mun naa ne kër kilifa la muy kër Sëñ Abdou Karim Dieng Balla Fally ak li ko wër fii yëpp nekk ay kilifa dëkk fi ñu bari yàlla suñu borom dogal ñu loolu ci mbënd mi fii am daaray alxuraan yaakaar naa fi ñëwee tey te ñu dëkk ci koñ bi loolu ñun la ko defal. Ami Mbacké mi lu mu ne ak digg yaay ak digg yëngatu maa ngi ji ndax sama doom la ba may ànd ak yaay booba lu tuuti la may ànd ak moom ba nagani si kon moom maa ngi sant taxawaay bi mu taxaw ci gouvernement bi di taxaw ni mu taxawoo Macky ak ni mu taxawoo ndaamaatu gi juddoo fi yaroo fi di fi def lu baax di fi wax lu baax di taxaw ku mu taxawoo maa ngi koy sant bu baax te di ko ñaan nag lu ma mën a dimbalee rek. xeeb naa ko ndax jigéen laa te xamul may daan sama doole yoruma doom yoruma càmm yoruma dara ñëw fi dëkkal ñëpp jaay nañ seeni kër waaye ma jaayante rek man toog. ñoo ngi sant bu baax a baax a baax di sant soxna si nag ngeen xamal ne ko noo ngi koy ñaanal ci maam sama borom dimbale ko lu mu bëgg rek ko defal kenn boole ca boole ñu ci nag nuy tam nu ne ci nu yàgg fii nu yàgg ci ginnaaw. waaw yaakaar naa ne depuis nag ba léegi yow nekkul ne. dañuy am ay oto yoo xam ne dañuy manga ni même fii ku ne xam na ne dañu am jafe-jafe ndox quartier yu bëri dañu manqué ndox ñu ngi woon Aliya ñu ngi woon Palim ñu ngi woon Jannatu ñu ngi woon Ndindi mën naa ne fépp presque ci Touba ci quartier yu bari rek ñu xam ne ñooñu am na ay jafe-jafe rek ñu ngi wàcc ci terrain bi pour jàppale leen. wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax ndax nit ki fi nga ko mën a dimbalee rek mooy fi mu nekkee ci jafe-jafe te foog naa ku xool image yi nekk fii. sa yaram dina daw ndax ay nit ñoo xam ne dañu tàmmoon nekk ci seen kër xàppi di dund lu neex tey ñu dund jafe-jafe ji yoo xam ne xëy na tàmmuñu ko wax dëgg yàlla metti na te yaakaar naa du ñoom dongo bari na ci Touba mbënd bi ba nangu na ay kër yu bëree bëree bëree bëri ñu bëri ñu ngi toltalaani kon tey ku leen fekk ci seen biir kër yi jàppale leen yaa ngi defal yàlla te lii yaakaar naa amul lu ko gën a ëpp solo fii ñu ñëw tey nag soxla nañ ko fi lool lool bi yaakaar naa ñi fi génn mën na ay diis buntu kër yaakaar naa yoo xam ne tey génn nañ ñi mënta génn ñoo ngi dund ak ndox mi kon ku leen fi fekk jàppale leen ci ndox mi yàlla suñu borom dina la fay soxna Ami acte bi mu def acte bu noobul la acte bu rafet la ñu ñi ànd ak moom tamit gis nañ ne sagal nañu ci ndax fépp fu mu ko doon def rek baax na fa waaye fii mu ko defit tey baax na te am na solo wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla fay ci barke alxuraan karim ndax fii ñu ñëw ku ne xam na ne dëkkuwaay la boo xam ne daaray alxuraan daf fay nekk ju mag joo xam ne ndongo yi ñu ngi fiy jàngee yaakaar naa dañ leen mujj évacuer fële ci kaw sax kon tey bu ko defee lu mel nii ñu ngi ko ji sant bu baax a baax di ko ñaan nag lépp ginnaaw lii nii buñ ñu évacuer ndox bi bu pare lépp luñ mën a jàppalee ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci daara ji di fi ak xale yi bañ mën a nekk ci ay conditions yu baax nañu ci jàppale loolu moom ñu ngi ko koy dagaan di ko sàkku ci moom soxna mi koy fa mu bëgg a egg rek yàlla na ko fu sëñ Fallou eggale maam ak sëñ Modou Balla Joor maam ndax soxna ami lu mu war lu ko war rek mu ngi ci ndax mu ngi ci dëkk maamam di defar ànd koog nag dëkkandoo yu baax yi muy Baye Garas Diop ñoom maa ngi koy sant daal lu mu bëgg daal yal na ko sëñ Fallou defal maamam lu mu bëgg ci dëkku maamam bi sëñ Touba yal na ko sëñ Touba def man daal maa ngi koy sant fu fant yem ndax lii rek dafa neex sedd xol ba mu ba ko déggee dafa daan ne Galas Diop mi dem leen kër yaa say njaay waaw waatu wàll li nga xaar ci ñun mooy comme lii. parce que comme lii ñuy def nga am nga xamante ne yàlla kat dénk na la ay moyens yoo xamante ne bii ci jàppandalu président ma Macky Sall la kon nag askan bi am amee ay jafe-jafe li lu war mooy ñun ñëpp ñu bàyyi lépp wàccandoo ci terrain bi jàpp ci jàppale askan bi ba jafe-jafe yu ñu nekk rek ñu génn ci loolu kese mooy suñu ay activité yaakaar naa li muy yëngu ci lépp lii yaakaar naa moo ci mujj parce que ku nekk xam na ne Touba ci jamono jii la commencé am jafe ndox mais mi ngi woon ci li nga xamante ne bi muy politique bi nga xam ne sociale la mooy jàppale askan bi nga xam ne am nañ ay jafe-jafe ci bépp fànn depuis Covid bi ba léegi tooguñu mi ngi jël ay moyens di ko def ñi nga xamante ne bi ñu ngi ci am ay jafe-jafe yëpp muy génn ay moyens wàcce ci terrain bi ñëpp ñu dem ci ñoom di leen jàppale yaakaar naa ne ndox bii nag léet mu mel nii quoi mu baree nii mais tamit teewut dafa boole lépp li mu doon def ak lii yëpp mu boole ko rek pour jafe yi askan bi am daal chaque jour moom mi ngi ci xaaruñu ci dara Nongi ngi dal sama borom defal ñëpp jam ca defal ñu fanu gudd ak wér ñun daal loolu la ñuy ñaan jàmm la ñuy ñaan moom la ñuy ñaan tey moom la ñuy ñaan suba lii nag moom sant yàlla laa ji def moom amu ci naqar moom lii xéwal dëgg la ñu ñaan barkel te xéwale lool ak fi nga ñu fekk ci daara alxuraan bi na yàlla yokk xéwale ci barkel alxuraan hmm, ginnaaw bu loolu nag ñi ngi sant ami Mbacké das ci jëf ji mu def tey ñëw fi ci biir kësam bi Balla Faali nga xamne daara alquran la ci kàngami yi toppoon Serigne Touba la bokkoon tey ji mu ñëw ci këram gi nga xam ne ni daara la ay nit dëkkoon fi yàlla dogal ndox mi ci coobare suñu borom wàcc fi ndox mu baree baree baree kër gi am ndox ba gone yi mënatuñ fi jànge ñun mujj évacué comme ni ko soxna si waxee ñuy jàngi fii ci kaw kon tey bu ñu yebalee ñi ñu ñëw ànd yéen délégation bi depuis ci suba ba léegi te ñi ngi ko doon seetaan du fii ngeen ko defee man gis nañ semaine bi yëpp ci loolu ngeen nekk kon ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaan rek lii mu def nii bu mu ko bàyyi ndax politique nag lii moo ci ëpp solo di fexe jege population bi di xam seen i jafe-jafe ngi leen ciy jàppale ndax lii acte loo xam ne loo xam ne nit boo ko lebalee lu baax rek ay na souvent ëllëg di nga soxla loo xam ne dana la mën a dimbale ci li nga bëgg ndax lii nga ko defal ndax ñun ñii fi dëkk de dimbale nañu ndax ñun yàlla dogal na ñoo dëkk ñoom mais lottu nañ ci te yàlla dogal bëggoon nañ ko te mënuñu ko xëy na fan yi ñu ngi fi doon ñëw ay pompe la ño yor pompe yi xëy na sant yàlla di ko sant bu baax a baax nag bi mu yebalee ñaari oto yi nga xam ne fas nañ ci

kon nag ñu ngi sant soxna Amy Mbacke daas bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yokk ko te kattanal ko te dooleel ko ci ministère bi mu nekk li mu fa bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla jubale président de la république yokk ay ndombay tànkam ñun suñu xol sedd na ci moom lool suñu xelit dal na ndax lam ñu ko wax dafa defe ne ko kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal ci fii mu ñëw te ci barke alxuraan ci barke daara ji ñu nekk ci barke borom kër gi yàlla ko borom kër gi wuutu taxawu suturaal ko yiir ko ba yéene ji mu am yëpp ci réew mi suñu borom àggale woo ci barke Serigne Touba bu ko jege woon dinaa ko ne jàppal ami Mbacke bu baax a baax a baax ndax ami Mbacke ku la bëgg la te ami du jàpp bàyyi ndax su doon jàpp du bàyyi da ciy xool leneen waaye xoolu ci dara nag moom ba mu jàppee Macky saal ba tey ma ngi gëmm teg ci bëtam lu lépp luy luy bëgg-bëgg Macky Sall barke sëñ Fallou Mbacke ami Mbacke ci xoolut fenn gisul kenn nag lu muy Macky saal la gis. lool moom sama dëggante sama tëraayu baam mais rek laay wax dama waxi jaaxaan Amy Mbacké gisul kenn ku dul Macky Sall xoolu kenn lu dul Macky lu Macky Sall nekk rek ma nga ja góorgóorlu na ci moom jàppale na ko bëgg na ko tey fépp foo xam ne fii nan Macky Sall dina fa ami nit Amy Mbacké taxaw na foofa di ko jàppale di ko wutali nit maanaam Amy Mbacké ak Macky Sall li ma leen di ñaanal yàlla na seenu taxawaay yàgg ndax li ma am ci Macky Sall kam na amu ko ci kenn nag waaw amu ci kenn ku toog waaw loolu moom après dañ ci lancer benn message boo xamante ne bi ku ne xam na ne Touba dafa rëy nga nekk fi politicien satisfaire askan bi yëpp day jafe mais nag li nga xam li ñuy dolliwaat di ko ñaax président Macky Sall mooy Touba dafa am wala am ministère boo xamante ne bii kat dina ko dooleel xam nga nga xamante ne lu ci jafe-jafe yu bëree bëree bëree bëri ñoom dinañ mën def comme ni soxna Ami Mbacke di def parce que moom daas la mais yaakaar naa ne mu dëkk nii delo nañ ko njukal parce que fepp fuñ ci dem ñom ñu ngi koy sant di lo taxaway bu muy def ci askan bi liñ koy ki rek moy yaakar naa ne bu fekkonté ni bi nomé nañ ko ministre yaakar naa ne Touba dinañ ci gëna sante yalla bu baax wa soxna si non ko sante bu baax ak yeen yeen ñi mu yebal ma ngi leen sante yeen ndax yéen ma wo ñu ne ma am ñu ne sa kër ndax man wax wo mo leen woon dañ ne ma ñanga ci kër di la xaar kon yeen tam amé naa ak cant boo xam suñu borom mo leen mëna fay yalla mi mëna fay nan yalla leen fay seen liggéey ndax ku def lu baax rek suñu borom fay la jamono ji moom nii rek la soo defee lu baax am lu baax soo defee leneen am leneen loolu rek moo fi ku la def lu baax daal moo la moo ku la gën a def leneen boo wala noonu rek suñu borom moom gëmul ne la wut tekki nag du jaawale ji fi kenn ah. lu waaye def rek xam na. Olof Ndiaye kuy raam bi la bokk bu amee oto dugal la te ki jox añ bu la nee xaar ma ma ñëw maa ngi jox la reer di nga ko gëm xam nañ ne Amy lépp luñ xaar ci moom dinañ ci jot xanaa kay ñuy eggale rek suñu wax ngeen jotalil ñu ko suñu président Macky Sall xam ne fii ñu nekk ñu ngi daw suñu kemtalaayu kàttan ndax nu mu amee ndam. am ay militant di mbokk ay dëkkandoo xarit am di jàmm ñoo xam ne dañu am jafe-jafe ndox te ko xool réew mi fi mu toll xool programme beeg lii am lépp noonu. vraiment war nañu mën a wàcc askan wi taxaw ci seen yitte ak seen bëgg-bëgg loolu nag tey bu amee ñu fii ci Darou Khoudoss indil leen benn citerne vraiment bu mag boo xam ne alors quartier bi yëpp tey ñi ngi fi ñëw ku ci ne indi sa paan di root loolu di am ñu ngi koy sante euh, soxna Ami Mbacke su ministre Dame Diop ñu ngi koy sant bu baax man muy suma xarit di suma wëllëre nga xam ne tey laa ko wax et boori 16 heures 17 heures na ko am na côté boo xam ne dañu manqué ndox mu ne ma dinaa wax sëñ Fallou mu yóbbu fa oto bi gis nga sànq ba léegi yéen a ngi fi kon loolu day wane ne li ngeen di def amu leen ci xej ji amu leen ci seen te li ngeen def vraiment da ngeen koy defar sëriñ bi ngeen koy defar maamam nag mooy sëriñ Touba maam mi tax mu koy def ci dëkk bu tedd bi ñoo ngi ko koy bàyyeek moom mu fayal ko boppam ndax am nag pay lii nag lu am solo la

di ci wax tamit maire bi di ñaanaat tamit Touba ci kanam ñu japp ci liggéeyu dëkk bi ndax ndox mi vraiment am nañ ci jafe-jafe jafe-jafe tax tey jii vraiment soxna am Mbacké booba tey semaine bi yëpp maa ngi koy seen fune partout alors mu fay dem di maye ndox Daara Xuddoos Ndindi Samla Gédé côté bu ne kooku vraiment kenn amul ak fayam te lii ko xool xam ne ay moyens luur la jël décos décoché ko pour mën a satisfaire bëgg-bëgg population bi te ñu ngi koy defal da ko def rek te yàlla tax kon boog ñu ngi koy sant bu baax di leen sant yéen it di leen wax neen lii mooy bëgg sa réew bëgg sa réew mooy da ngay xool ni kii nga nekkal am na jafe-jafe nga tene ko ci nga jàppale ko yàlla moo ne nañuy jàppalante jàppalante ci ay njëriñ te lii boo xoolee ay njëriñ la parce que boo xoolee ni ñu ko bëggee mu jaral leen ñu jëndi raakool di kër kër yi lu ne ñu koy def nga xam ne yor seen xaalis sax bëgg ndox duñ ko am problème la kon tey bu ñu ñëwee gis koo xam ne dafa yëkkati ndox may leen ko te laaju leen benn dërëm vraiment loolu sant la man moom suma xol sedd na fi vraiment man kenn rek xam naa ne wax loo ma yomb kon boog lu ma wax loo rek ñëpp xam nañ ko moom vraiment lu tegu ci yoon la parce que nit ki moom du ma ko waxal loo xam ne bokkul ak li muy jëf encore une fois maa ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ne ko fii mu teg tànkam fii la am na ko yàlla